Thank you. bi ñëwaat na ki mën làmb te saf amateur yi saa bu tëggee ñu kontaan moo ñu woo le 20 mars arène nationale grand combat bi war a dox ci diggante Gora Sox ak Fils de Balla première édition drapeau bi ngoone borom confrontation waaye jamaykee yemu fa ndax combat spécial bi war a dox ci diggante Ronaldinho ak Kaw Gourdin combat boobu la ñu nag daal koy tuddee soxna Aïda mu Serigne Saliou boobu ba tey wulli wulli wat du xam ngeen ko dina fa jàkkaarloo la lutte waaye nag wetul ci bés bi benn yoon mi ngi ci ànd ak Kayor immobilier huile Jador jamaïcain ak waa Jampro ñi dañuy sargal jigéen le 20 mars moo tax ñu ne dugg bi nag dinañu ko yombal supporter 2500 francs amateur 5000 francs loge 10 000 francs kon mbokk yi rendez-vous le 20 mars ak Jampro arène nationale kenn du fa père ba ku mel na góor gi Papino Assane Bamba Dieng sant maître Dior di sant Momo Mbaye sama xarit doomu maître Dior Diagne la quoi maa ngay sant bu baax baax di wax nit koo xam ne nit ku baax la quoi di sant Ibulaay pour sama gars la ku baax la koo xam ne ni muy ñun mbiru parcelle kenn amul fayam képp ku am bés rek da ciy sonn di sant maam père boobu baax a baax a baax a baax waaw lépp lu jaaxaan naay nga bëre daal nii. mais ndegam moom damay rëpp rek maa ngi sant yàlla ba mu dalee bëre ba lay daal kenn mosu ji fu mu mbër daane loolu maa ngi sant yàlla quoi. combat bi mën nañ xam ci ban anam ko waajalee sa diggante ak Fils de Balla parce que coow li bëri na seen diggante yéen euh, ci ban anam la ko góor a soog waajalee ak lan la say supporter say soppe ñu lay jàppale lan lañ mën a xaar ci combat bi bëri xeex ndax gis nañ ne góor a soog du xaar at bi day suivre rek. nga def li nga xamante ne moom la la bi da ngay xaar taxaw wala da ngay bàyyee Fils de Balla combat bi. man amul benn euh, ci làmb ndax man xëy làmb mën naa bëri am naa doole kon lu ma lay bàyyee képp ku nga gis muy bàyyee mbër làmb wala muy négocier kooku dafa doole wala mënul bëre man naa bëri am naa doole su dee doolee maa ko su dee bëree maa ko dàq bëre su dee ñëwee mën naa ko may. non maa ko doole dama bëri gis ko mu bëre. non non ku ne na seeraan suñu combat yi. waaw góor a. ma ma ma ma am lu ma wax. xam nga tey instant yi ñu toll nañu gis mbër mhm. bu ñuy bëri muy tout poids lourd seen seen classe léegi mhm. bi day bëri. Mhm. des fois duñ sax songu. amateur yëpp dañuy mer. tey combat bi tey xaar nañu góor a songu. bëre duma daan. waaw xam nga da nga ne poids lourd yëpp. man ci seul poids lourd yi nga xam ne mën nañ daan mbër ci sept par sept sept minutes sept secondes une minute deux minutes ci laa bokk man sama combat bokkal kay moom des moom des Cobra ñëpp lu ma leen daan matul sax une minute maanaam ma sept mbër yoo xam ay sept secondes laa daan dégg naa ko sax démb ma la may une minute ah moom si dañ bëri une minute ci ci xalaat bi mu def mm-hmm. ah. non man mooyu ko dara ñaanu ma ko dara mm-hmm. man li ma yor xam naa ko mm-hmm. te la la vingt naa ko wane. ok góora euh, dañoo am ay ay kii ay information que ni ay benn benn sa benn audio boo xam te ni day daw. Mhm. xam ñu nag ba xam góora soog la wala kan la. Mhm. ah ñu ne góora soog dafa blessé. Mhm. blessure bi ñu ngi naan góora soog dafa blessé mais blessure bi ba tey góora soog ñu ne la vingt du bëri. tey demagul CNG déposé médical am. est ce que blessure bi ndax man am na audio yoo xam te ni dégg nañu ko te géej waaye laa ko déggee. est ce que loolu tamit mën nga koo confirmer. waaw ci blessure waa da ngeen bàyyi bu nga dégg ni man damaa blessé mais boo ko déggee ci mbedd man loolu mënuma si tontu li ma mën tontu rek mooy li may waxal sama bopp. mais audio yi dañoo dégg yoo xam nañ ko teg nañ ko teg nit ko kay. Ah. Mhm, teg ko. Ah. su ko mhm. te ne moom mooy ah, fils de Balla mooy dafa yor seen audio ñu ne yéen a bokk mhm. ndax fils de Balla nee na su paree lay teg audio yi est-ce que audio yéen ñaar rancune bi foofu la jigéen moom moo tax tamit ndax gis nañu yéen ñaar fooy taxaw day fooy taxaw rek rank beeg ni carrément ma jaral. non man moom maa waxuma ci détail jigéen waxuma détail yi. détail yu ah. laa nekk. man moom problème moom su dee dafa yor ma audio yoo ma waxee lu bon. wala mu def ci àdduna. Ah. wala ma wax ko jigéen moom yàlla na ma daan xam nga loolu dafa yomb man yoruma audio fis de balle xamaluma ko bon xamaluma ko ñaaw yoruma daraam. li ma xam si moom daal. mooy mbër la man mbër laa damay bëri man détail yooyu mbëri nekk nekkuma ci dugguma ci te kenn du ma ci dugal deuxièmement Fils de Balla nit la ko man jabaram bokk dem fii la yendu kër gi kër gi toog te man fii laa dëkk gis naa ko nuyu ko kafa moom ree wàññoo ma dara man débat yu mbëri nekk man sama yoon laa nekk am sama carrière am staff ku mel ne Soy Laay Seexu naa Jaw Abdou Ndiaye aada Jokkel ñëpp yor ma kon man mënu ma nekk ci ay détails nekk magu jëmm yooyu détail nag mbër bu ci nekk sa problème la man li ma mën wax mooy man ci làmb nag sport mënu ma di génn at cadre sport mënu ma nekk fi naan ay jigéen bi xale bu jigéen bi xale bu jigéen même su ma amoon gel war ko doxaan war ko takk moom su ma ko gënee bëgg bu dee gel moom la bëgg na dem kooku am ma ci droit di kaas ay làmb man ci làmb laa nekk ni ko ma ci waxu jigéen yi ah non man waxuma la loolu laa man dama ne la man amu droit nekk fii di détail ci ay jigéen ci détail làmb laa am ak samay fans. Mhm. mais mais mais sànq léegi blessure bi da nga ñu xam euh, est-ce que tamit nekkul yow. dañ dañuy change ndax change bi mooy que ni yow en âme et en conscience de vin xam nga ne mënu cee mënoo cee wax mais est ce que si c' est le cas bu dee euh, euh, plan mhm. sa adversaire comme que ni ñu préparé. Mhm. jarul tamit bu fekkee bi euh, c' est xam nga dañuy kii rek ay ay recherche bu dee ne moom a xaar ba mu woon ni man am naa blessure ba ci nga moo ko ma dama am blessure. ok waaw. voilà jërëjëf Gora foofu laa jógee bi nga xamante ne mooy ngeen fa wax si côté violence gis nañ sa diggante ki nga xam ne mooy Fils de Balla bëri na violence bu ci am seen diggante ba seen jour bi ngeen la jàkkaarloo Iba Mar gis nañ li nga xamante ne mooy violence bu amoon ci problème ay yóbbu na sama kabak loolu nii kab bi fi daal Fils de Balla jël mën a jàpp la mën a jàpp ci biir daal parce que jour jël na xeex nga ci tëb nga ci lu ne coo nga ci coow yu métti ñu gis lamb yi ba euh, seen combat toujours dañuy ragal mu bañ am violence parce que gis nañ jamono ji lamb ji violence muy bëgg a am muy bëgg a santel toujours ci lamb gis nga booy bari actuellement jàpp nañ seen licence aj ay at bari ndax violence bi nga xam ne mu ngi am ci làmb te ñun dañuy ñaan ñu tamit làmb ju ñu kenn ba ku nekk ñibbi sa kër parce que ñun ñëpp la ñu ñaan ci a wane exemple boobu bala ñëwee nekk moo ñu boole dañuy liggéey làmb mooy tout le temps ci gox yëpp Pikine nag Géejawaay ak Parcelles yi ba ci am violence baaxul ci benn sax sport ci réew kooku moom ñu ngi ñaan képp ku koy def rek nga bàyyi ko mais man moom ci gox bi ma dëkk gox bi ma dëkk nii goxu sëriñ la violence amu fi jàmm moo fi am fii Cambérène police sax mën nga toog vingt ans fi kenn du la ramasse deuxièmement sama mbokk mboor mboor yi nga xam ne ñoom samay supporter lañ ñooñu amul lenn lu dul liggéey xamuñ lu dul liggéey xamuñ xeex xamuñ xuloo bu xëy ñi seen camion yi seen li ñu war a liggéey man nag comme nu may wax tout le temps rek sport boo gis si àdduna am na coow mais dañ ñaan yàlla coow bi jóg fi li ñu ko war a xam sa diggante fii sa baax dafa am taxaw wala quest parce que dañuy gis coow da a yor sa kap yow yu am yor ci moom yu ay waxu vocal problème bi lan la avant lamb la wala yor ce qu'il y a. man yoruma dara dama ni moom su dee yor ci man lu bon. yàlla na ma daan loolu laa la wax su dee dafa yor lenn loo xam ne ko wax lu ñaaw ci dëkk bi moom yàlla ma daan lool kay yow man man we sëreetu ma nekkuma ci débat yu mbër nekk di ay ceen ci ay mbër ay diw dafa yor lii damaa yor damaa xam damaa xam lii man moom bu di ko soxlawoon ci koñ bi fi ñëwee man maa koy gunge barki alxuraan man ma ci détails yu mbëri nekk nii man sportif laa sport moo may may li may am ak yar ak teggin ak jaamu yàlla bu ma nekk amul leneen lu ma lu ma mën a wax ci leneen. ginnaaw bi nga ma ne ko Gora Sock hmm. la jóg. Hmm. ndax bàyyi nga xel loolu mu ne ko arbitre sulle boo maamee ci kaw nga ko defati. dégg naa yooyu mu koy wax hmm. xam nga yooyu ay détails la. te détails yu bëri moom jëru damay bëri combat bu yéex damay bëri combat bu gaaw ak du problème sama diggante moom incha allah rabbi yàlla nañu yàlla may tal ak fekkee at bi loxo. mais saraf sax lay lépp lu mu lu mën ci man dama ko def maa ëpp doole maa dàq bëri maa gën a ñeme ok maa la ko wax ah. lool moo ñu fi ba su doon loolu duñ fi nekk di wax dañuy nekk ci leneen. ok beneen question bi moom ba jël euh, hmm. boo yoroo liggéey na tànk yi liggéey boo xamante man nga wax ci moom lu ñaaw wax naa lu vingt fois même mbër ma su ma ko daanee ak su ma bëree man wax ci moom lu ñaaw man bëj naa wax sax mën naa toog un an du wax ci site internet ndax man bëgguma ay détails c'est noonu laa mel non li mu nekk si moom loolu la fa incha allah rabbi maa ko mën maa ko doole su bëggee buy ñëw bépp ku muy àndal nañ daal xaalis bi ñu teg 2 millions 2 millions 3 millions 3 barke alxuraan laa la waatal nag maa ah. moom ñu teg ko maa mën ah. maa dàq bëri maa gën a ñeme lookee ah. maa la ko wax jërëjëf jërëjëf Gora Sock wax ju ñaaw. Mhm. wala ngay bañ tàgg sant. Mhm. mais dañ lay woo souvent dañuy gis ne yow pour ñu décrocher la pour génnee la feeñal la pour nga jël nit téléphone day am day ça coûte problème. Mhm. parce que ñun ak yéen. ñooy liggéey. ñun ñoo leen mën a feeñal lan moo tax Gora Sock pour ñu woo ko pour ñu waxtaan ci combat wala ñu jël ko pour ñu détail ci détail làmb Gora Sock pour nga pour mu jël la téléphone problème lan la. waaw loolu la ma ci wax rek man comme genre carrière laa di ko sàmm. carré du pour bëre rek image lépp si la bokk te deuxièmement dafa am benn affaire bu ma nekk boo xam genre marketing la boo xam man bëgguma di génn sama image du bëri ci doomu aadama yi boo xam ne ku mel ne Leuz Mokor ak Moussa xam nga yooyu boo amee ba pare ay nit ki la da xam li ngay wax li ngay def ba ñu mën ak benn site si ma mais quand man wax bu bëri bi rek du ma ko mën tout le temps comme ça du tet duggi tetaay jóge géejawaay mburum géejawaay nee na góor so xam na la fii mburum Pikine nee na la nii man awma jot boobu jot ma am mooy signé contrat lépp lu mu bëgg naa ko wax lépp lu ma jëf naa ko ba jëf dégg naa roog deuxième mois mu am lu mu wax dem ne moom ma ëpp supporter man ba ma dalee bëri bëri amul benn mbër moom ma sa noyé waaw ci neex na seetaan lamb yi bu sa bëri Gora Sock dañuy dégg ñu buñ kaw la waaw suuf gi amul ah. moo tax Gora Sock loolu yaa mu loolu lépp ndax daan naa lu mat quinze personnes te ñoom yëpp kenn mosul toog sama biir man amoo problème boobu bu ñu xoolee écurie ko tàgg Balla Gaye loolu moo ko war Balla Gaye loolu moo ko war waa Guédiawaye loolu moo war mu ne mu problème boobu su tàkku saan jotal mu ñëw tàkk fa ngeem soo motul waa Guédiawaye yëpp mën nañu faral su ma ñibbee ok loolu problème ay diw moom lay àndal diw ànd ak yow du dara yow nga liggéey mooy dara nga gëm sa bopp mooy dara man am naa ñu may àndal samay mag ku mel ne Poisson ku mel ne Modou Lo sama rak ku mel ne sama xarit ku mel ne Garga de samay jarbaat Talfa sama nijaay Ada Boy Bool ñoom fils de Lirou ñoom ñëpp samay booy la ñoom serpent mi bëre tey wax suñu borom may ndam maa ngi ko koy ñaanal. non lii du revanche mbëri ñoo bëgg bu ñu jëlee avance suñu teg wuti détail di wut ay jàppale ay ku dimbali lii combat la maa moom. Balla Gaye du Balla Gaye du Modou Lo Modou Lo dafa ko Ama Baldé Balla Gaye dafa am combat mu Gris Bordeaux maa ngi moom dañoo am nañ bàyyi seen affaire yi ñuy def. di bëreeg mbër naan ay lii référence su parcelle la ak référence lii fii référence boo koy jël yaa jël say engagement ni ki may bëreel dama ko jël bu ma koy jël woo ma Balla Gaye ne ndax ma jël ko diw dama ko jëlal sama bopp. mais Gora moo la moom. sax moom ma raw. ah moo raw bu soobee yàlla vingt heures jot dañu xam ne maa ko féete kaw. loolu moo tax ndax gis na moom seet nañ ko. ñu laaj ko pour adversaire yi bëree ak yow mu gën a ës mu ne ki ci Elhadj Malick. gis sañ ko. par rapport daal ko adversaire yi ñu def. Ah. gis que tamit yow sa wax xam confiance bu bari. confiance bu bari tamit nekkul kii bi ñu la jox. waa nee nga jox lépp xam nga toujours sax man bëgg mooy insiste général ndax général mbër la maa ngi koy ñaanal suñu borom mayaat bu amee combat lu waa parce que suñu borom may ko ndax mu bëri la quoi mais dama ne man ñi ma bëreel ku bëree jëm ci yéer yi. daan ko 7 secondes. Cobra ba muy teg ma bëree ak moom mobile ba muy teg ma bëri ak moom ma Paul bàyyi ma njoon ñooñu bëree Tyson 2 mu dem wuti CNG wuti par recours mu nekk mu wax ci sa baal moo ma nàngam man dama ne ba ma dalee bëre ku mu neex journaliste bu mu neex nga génn sama combat fu mu mbër fu mu mbër daane te kees combat laa def dangaa a ës foofu ko fi non jam téeri kenn bi may bëreem kenn gën a ko ës ñu nekkoon roi des arènes boobu Cobra nëpp doole bi may bëreeg moom nekkoon roi fii Sénégal mais lamb du loolu lu ndaw la rek lu ñu war a régler maa ngi incha allah rabbi ku nekk seeti la neen bi ndax comme waa ñaar. waaw bëre moom affaire jàmbaar te moom xam naa jàmbaar nekk na si man deuxièmement man moom wax ji mën na ko wax mais ci biir géew di wax moom. ba non ci biir géew man nag maay wax te maay daw di wër géew non loolu wax bu bi fekkee bi la fa wax naa ko maintes fois ni ko bu ñu woon maag yow ci stade bi cinquante combat dama koy daan ci jour bi. maa dàq bëre maa ko doole maa gën a ñeme. moom ci détail rek la teg combat bi. ci loolu détail rek mooy comme wax yi mu ay polémique yi daw laa koy polémique nii rek mais man ma combattant kenn mënu gis fu góor soog ni combat dama ko jox Modou Lo ma ko jox sama papa di ak samay supporters sama waa koñ fii maa ko jox sama bopp ak samay supporters ñoom Dieng ñoom Lampal ñoom booy ndaw yi ñoom Papa ñoom booy mais kenn ma la leen ba tax coow li xaw a lan nga xam ci Fils de Balla maanaam ci wàllu làmb man lay wax. Fils de Balla mënu xam sax xamul sax mooy ndax moom mosuñoo bëri dafa am loo bëgg a régler sa diggante ak Fils de Balla. da nga bëgg a relancer wu pour wane ne wax dong la am ci làmb ji wala dafa bëgg a wane ci yow lan nga ñu bëgg a ci Fils de Balla sa diggante Fils de Balla. daal mooy incha allah la fay incha allah rabi naa ko daal. man taman leer na may ñu koy entraînement ak ñi muy àndal ñoom Balla Gaye ku ñëw si xaaj ñu mun koo teg ci moom maa la ko fii dama la man ñi muy àndal koo ñu seen xaalis ñi muñ ko teg ci Fils de Balla. dañ laa deewal. maa la ko wax bu baax di la. waaw ah, dama gëm ne ma damay liggéey xaye laa su ma tëddan rek wala yow mi li boole ma ci sëriñ si àdduna yëpp yu aay ñu ñaanal boo dikkee dama lay daan mais nag suñu borom moo dogal ni yàlla moo ñaan leen mu may kooku ñun dañ koy nangu wedduñ kenn ñaan kenn lu ñaan kenn mais dañ ñun li ñu doy mooy entraînement ba mel na xeer contact ba dëgër këcc mën a bëree ba suba. ñu la mooy suñu liggéey. dama ne la moom waxuma ko mbër yi nga xam ne ñoo nekk ci làmb ji di fayee ko cent millions man mënuñ maa daan su ma bokkal si ñoom écrit ñoom mënuñ maa daan. pourtant nee na yaa gën a neex daan ci làmb ji parce que arrière ngay bañ arrière. waaw yow yaa ngi fi maa ngi gis nga mbër jël sama tànk nu ko neexee ma daan gis nga mbër song ma ko neexee gis nga ma song mbër daan kon kay loolu du détail xanaa am seetaan ñu ma bëre promoteur bi décroché seen combat tamit di seen morom wala ngeen mag ko lan ngeen koy wax ak lan ngeen koy ban surprise ngeen koy préparé suuru làmb ji. waaw mooy li li li ñu war rek mooy dañoo waroo ci contrat boo xam ne moo ñu tënk ñun ñaar ñëpp mooy contrat mi ñu tënk mooy am yaqin ci ñun ne bu ñu tëggee du ci perte. incha allah loolu dinañ ko ko delloo ba wis ko te ñun leer nañ suñ jógee kàmbar gi ñu dëkk day jóg suñ mbokk mboor mboor dañuy jóg te dañoo am ay kilifa ñuy jàppale yoo xamante ne bii ñun lépp lu ñu bëgg rek ñoom ñu ngi si. non boo daan daal ayca baax na. dana la ayca gars yi. ci wàllu arbitre ñu ngi koy kaas. combat jàll sama ko manage nag mooy dogal. mais nit day juum arbitre ay nit dinañ comme yow. yow sama ngaa jógee sant diw du moo daan te diw daanu. ñu nag dañuy ñaan CNG bi yëpp mu ñu tënk mënuñ ñu vaar mooy nga ne làmb lu problème rëy rëy rëy moom tout droit ci vaar bi dem xool ko ñëw am ngi daan deuxièmement man ki mooy bëreel ak waxuma sax ki mais ñeneen ñi ma war a bëre ci at yi ñu bu mu neexal jëru arbitre ne ñëpp toog ci tribune si dañu xam ku daan waaw ndax sa kaw ah ah. waaw dama gis ne da ji si la man dama mos am sañ mosuma daan mbër ci ay ay ay dafay kaatapi laa ko dama ñi ma daan dama toog seen kaw uh-huh. te dama leen jàpp uh-huh. jàpp leen bëre ak ñoom waaw mais bu ñëwee si wàllu mbapat yéen ñaar <laughs> loolu daa ñëwee mbapat ak ah. wure moom benn wure la am benn moom benn wure la benn benn mooy jàpp sa ngemb nga siggi bàyyi ko sa yaram mu def nii kese la am. amul ah leneen ah day zongale. zongale da nga a gis ponkal ba ca kaw. waaw ah, man a zongale man. jàmbaar <laughs> tafaaleer. naan la daan de. pour dernière question sur man. non dëgg ñëw. ci loi laa ñàkkee combat. ci droit quoi mais man ci ndam laa jógee. man depuis 2012 2012 ba mu dalee bëri ci ndam laa toog. Mhm. du ma mbër boo xam dafa ñàkk confiance wala dafa daanu mbër wala dara man ci ay détails yi nekkuma ci détail ma daan ay mbër. mais bu ñu demee mm. CNG waaw xam xam loolu dafa am bu ñu demee CNG xool kayit yi mais man dama ma nekk ci man ba léegi damaa daan laa toogee waaw. bëri ba suba si pël si la wala Fatma Dia naan ko damaa gaañoon moo tax ma bañ a su ma bëgg a sauver ma bëgg a sauver bis bi maa feebar. athlète xam ñu la tënk nga nekk mbër day xam say droit mooy man li ma gën a bañ ci sportif rek mbër daan na pare naan ko damaa defal nii damaa defal laa képp ku la daan moo la mën. loo la daan moo la mën loolu amul parcelle gi ma dëkk te man sama gox bi laa mën mënu maa ko goxu jàmbur mais parcelle bi mosoo gis ci sama mag mu la poisson laa koy jëkke mu la mbër bu ko mos a daan benn journaliste dañ ko jàpp si gàllankoor dañ daan ndax mën ngeen ko mos a gis poisson noonu da koy ñaanal te ñun ci solo gaz boobu lañ nekk lañ seen ginnaaw lañ nekk ci ñoom rek lañuy xool lu ñu def lañuy def lu ñu bàyyi lañuy bàyyi beneen beneen côté que gis nañ recours yi bari na ñoo xam ne mm. dañuy déposé recours ba pare gagné. Mm. mais après victoire boobu day niin mm. adversaire sama xarit la sama sëriñ la ku mel ne ala idda yooyu samay nit lañ anañ suñu borom defal jàmm yokk leen tawxiit ci barke yonent bi ci barke seen maam ma ni affaire du maj dabaa jeunesse bi nekk Cambérène ak bi nekk Mboor ñëpp góor a soog bëgg lu ma métti métti ne lu leen neex neex na ma sama mbokk nag yi nga xam ne samay xarit lan ak ñi ma doon àndal ñi nga xam ne dañoo ki Europe ku man ñoom Pape Yade ñoom ma seen fay Babacar seen mag am ma seen fay maa ngi sant bu baax a baax a baax